sant bu baax a baax tey ñi fi teew ñëpp tey nag euh, formation bi ñu doon def tàmbali nañ ko ci bisimilahi rahmaani rahim tey lañ ci war a génn ci alhamdulilahi rabil alamin ñu ànd ceeg waa 3FPT formé 80 lutteurs en sécurité garde corps rapproché war leen jox tey seen diplôme de reconnaître seen ay diplôme mu nekk bés boo xam ne bés bu rëy ci ñun la parce que euh, formation dafa am solo ci réew man mi di wax ak yéen maay président bi maay initiateur bi à l'âge de 19 ans laa voyagé dem Europe bi ma demee Europe doon fa liggéey sécurité garde ko rapproché mais dañ ma ne laata nga ko def il faut ñu tàggat la former la pour nga soog a dugg ci liggéey bi waaye ba ma ko defee rëccuwuma ko mais Olof Ndiaye dafa ne tukki jom la mais ñibbisi fula la bi ma ñibbisee yàlla def ma ñëw bi ma ñëwee nag nekk un promoteur culturel sportif taxawal tey association bi tudd FILS muy formation insertion de lutteurs du Sénégal noonu ci la lënkaloog état ministre de la formation professionnelle de l' emploi et de l' insertion muy ministre Dame Diop mu boolema ak ay direction am lu mel ni 3FPT 3FPT tey euh, financé financé formation bi nii mu bëgg nag état gën ñu dooleel parce que tey la jeunesse c' l' avenir d' un pays te wa mbër yëpp ñi ngi xaar formation yi nii. bëgg nañu état gën ñu dooleel parce que loolu moo tax ñu jóge bitim réew li tax ñu jóge bitim réew nag mooy tàggat xale yi ñoom ñëpp ñu am xëy loolu moo tax association FILS taxaw tey euh, bëgg jàppale xale yi fu xale nekk rek. te booy seet dix mille licenciés yi chaque écurie bu amee mille lutteurs mën nañu cinquante yi wala cent yi ñooy bëri at bi léegi ñiy topp mbër bi nag te même nii nekk en activité sax war nañu préparer seen carrière parce que suñu papa Mbaye mi nga xam ne tey moom la ñuy rendre daan na ma wax ni tey su ma mënoon delluwaat xale def formation dama koy def. formation nag dafa am njëriñ tey nag euh, 3FPT ki nga xam ne mooy directrice bi muy Mame Abi Seye financé formation bi njëkk na ko formation financé vingt lutteurs tey mu financé waat soixante lutteurs moo fi teew te yamalewu ko rek ci làmb ji fépp fu nit nekk rek di jeune mi ngi lay jàppale mi ngi lay financé mi ngi jàppale le président Macky Sall kon nag moom euh, am nañ yaakaar ni. jeunesse bi muy yeneen mbër nekk ci région yi di ñu woo am na yaakaar nañu ci accompagner accompagner bu am solo formation yi nag bëri na tey muy agriculture di pêche di aquaculture di stagiaire di sécurité sécurité nag boo gisee ñu bëri taamu ko réew bu amul sécurité amul dara 14 régions ku ne xam na ni dafa bëri te gendarmerie nationale ak police du fu ne lañ mën a couvrir tey liggéey bi ñu liggéey moom la ñu liggéeyal man mi nekkoon bitim réew xam naa la ci sécurité. parce que tey am na ci zone yoo xam ni bu amul poste de police jeunes yi ñu formé dañ ne ñu ñu ñu formé parce que un jeune bien formé est l'avenir d'un pays kon nag jeunes yi ñu formé muy lutteurs yi nii tey ni leen tàggatee am na ci zone yoo xam ne ci ci yenn yenn yenn dëkk yi ba fii Ndakaaru tey mën nañoo gérer sécurité boobu noonu moo tax nag sécurité dafa am solo kon nag ñu ngi représenter Abi Seye ñu ngi ñu ngi remercier madame Abi mi fi teew. di ko wax liggéeyam nag Sénégal ñëpp gis nañ ko monde entier ñëpp gis nañ ko parce que àdduna li am solo mooy liggéey seul le travail paye te mu ngi liggéey yamalew ko rek ci làmb ji fépp fu jeune nekk muy étudiant yeeg ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mi ngi leen di jàppale kon tey bu teewee suñu bés defal defal ñu teranga gi mënuñu lu dul sant ko gërëm ko di ñaan yàlla suñu borom yàlla na yàlla àggale suñu yéene yàggal yàlla yàlla yàggal ko fi moom it ba mu gën ñoo accompagner ba fu lutteur nekk rek mu gën ñu cee mën a jàppale loolu daal mooy kii Mhm. waaw mais sant yàlla parce que dañ ne nervi formation yi tàmbali na jeex na xam nga lan mooy nervi mooy qui ne comprend rien koo xam ni euh, jàngaluñu ko xamul mais xale yi nii tey ñu formé tey du nekkatuñu ay nervi ndax kenn mënatu leen exploité war nañu mën a am seen job nag mais ci kaw ñu teg ko ci dans les règles de te ko fu leer parce que formé nañ leen te ñi leen formé ay ndaanaan lañu parce que ñi leen formé tey képp koo xam ne rek tey képp ku fi yor ay VIP ñoom ñoo la formé moo tax nag dañuy sant yàlla ñoom ñoo ko waxal seen bopp am na ci lutteurs yoo xam bi ñu leen formé ba pare dañoo remercier association FILS remercier abise yi parce que tey formation yi tax na ba ñoom nee nañ nekkatuñu ay nervi moo tax formation dafa am solo de nee nañ nekkatuñu ay nervi léegi kenn dootu leen exploité dañoo yor seen ay diplôme yor seen ay carte professionnelle ku leen di woo ci cadre professionnel la leen di woo moo tax nag tey état président bu amee 42 ministères wala mu am 30 ministères ministère de la formation professionnelle de l' emploi de l' amul ministère bu ko cëpp doole parce que ndaw dañ leen war a former ku amul formation amoo dara tey nag ñii ñu former ñu war a jot seen diplôme mu ngi mel ni tey ki jàng am master am doctorat am yeneen tey diplôme yi ñu am nii da leen di servir kon nag 3FPT ñi ngi ñaan président ko gën a dooleel parce que ki fa nekk di doxal mi ngi liggéey ah. mi ngi liggéey. ñun newuñu fi pour nax kenn ñu dañuy liggéey mais mi ngi liggéey soxna si kon nag ñu ngi koy gën a encouragé di wax président Macky Sall di wax ministre Dame Diop fi mu laal foofu la nañ ko gën a dooleel ñu gën a ànd ak lutteurs yi 14 régions yëpp ñu ànd liggéey ci kàttan yàlla incha allah. Ah. station yi nga xamante ni taxaw nañu tey jii 3FPT jàppale na 80 lutteurs ci wàllum ay formation yu ñu jagleel sécurité ay gardes rapprochés ak yooyu di ko rafetlu ndax tey jii dañuy yi. ci seen activité lutte bi ñuy def loolu rek doyul parce que ñëpp mënuñoo fës ci lutte bi ñëpp génnuñu ci lutte bi donc dañu leen war a taxaw pour ñu am beneen activité à côté bi leen di mun a jàppale. tey jii ci garde rapproché la tey jii ci sécurité la mais suñu suñu suñu pas-pas ak suñu yéene ak association FILS ak seen président bi taxaw tey jii Bamba Mbow mooy jàppale leen sur toute l'étendue du territoire maanaam laal quatorze régions du Sénégal yi te xool tamit yeneen yeneen tàggat yoo xamante ni tamit dina leen mun a permettre ëllëg. ñu mun a daan seen doole di def seen lut waaye tamit continuer continuer am beneen activité boo xamante ni activité décente boo xamante ni dina générer ay revenus permettre leen tamit seen insertion ci ci ci ci dëkk bi gën a yomb di wax tamit ni 3FPT li tax état teg ko fi mooy jàppale ci wàllum dooleel jox nit ñi kàttan ci formation ndax bu ñu nee formation formation pour lan la pour liggéey la rek ëllëg tremplin la pour am liggéey moo tax tey jii tamit ñu xool suñu suñu autorité yi du ministère de l'emploi de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'insertion jox ñu ay digal mooy na ngeen xool ñi nga xamante ni tey jii amuñu accès ci dispositif formation yi te boo xoolee tey jii lutteurs yi ñoom mënuñu woon xalaat ni am nañu mun nañu accéder ci li ñuy wooyee formation professionnelle. donc bu fa 3FPT yeggee day wane ni que rek ñun tey ji suñu liggéey wax nañu gën a xool gën a ràññee ci biir Sénégal ñi nga xamante ne amuñu benn accès ci dispositif formation yi ñu taxawu leen dooleel leen di wax ni que tey jii suñu partenariat bi. lu door la mais fas yéene nañ ko continuer ak association FILS taxawu leen taxaw leen ci quatorze régions yi taxaw leen tamit ci yeneen formation yoo xamante ni ñoom ñoo koy identité identifier parce que bu ñuy wax insertion ki nga xamante ni fi mu nekk moo war a xam li la dëkk ba laaj ak la la ñu fa soxla loolu ñun 3FPT mu ñu ko wax mais ak association FILS xam nañ ni dinañ ci ñun dinañ toog toog ak ñoom xoolaat ak ñoom mun leen jàppale lutteurs yi nekk à travers tout le Sénégal